di remercier waa Tawhid TV ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser manifestation bi initiative bi ñu jël pour ñu mën a waxtaan ci loo xam ne dafay réewul rek jëmale suñu réew ñi kanam tey nag dañuy wax ñu waxtaan ci mbirum guerre bi nga xam ne moo am fële fu sori mooy Ukraine ak Russie ci guerre boobu yan jàngat la ci suñu réewu Afrique yi ak dëkk bu mel ni Sénégal mën a am ma ne nag loolu bu ñu ciy wax professeur université mën na ci wax xam-xam expert mën na ci wax xam-xam mais man dama tànn bu ma ciy wax ma wax ci comme doomu Sénégal ak doomu Afrique boo xam ne damay jéem a xool fan la suñu intérêt nekk foofu bu ñu fa nekkee kàddu France du moo fay jib wala kàddu Italie bi moom moo fay jib wala kàddu Espagne ku ci nekk dafa am looy bàyyi ñun ñu waxandoo benn moo tax fu ñu dem toog ci àdduna bi di waxtaan dañ leen di jox bopp dañ leen di respecté parce que dañuy am doole ci armée dañuy am doole ci xam-xam dañuy am doole ci àll dañuy am doole ci économie Afrique nag amuñu chance boobu wala en tout suñu bopp chance boobu lu tax parce que pendant longtemps dañ ñu coloniser ba ñu moomee suñu bopp gi ça fait soixante-deux ans juróom-benn fukki at ak ñaar. booy xool ci histoire pays juróom-benn fukki at ak ñaar day mel ni boo ko doon xool ci nit xale bu góor boo xam ne dafa toll ci waxambaane wala xale bu jigéen boo xam ne dafa toll ci jànku problème boobu ñu am mooy tey suñu réew yi dafa bari ay pàcc dangay jël Sénégal mu doon fukki million di nit ak juróom nga jël Benin bariwul nga jël Côte d'Ivoire bariwul nga jël Guinée Bissau bariwul nga jël Djibouti matuñu sax un million ku ci nekk bëgg a waxal sa bopp ci ay problème yoo xam ne ñoom ñëpp daf ñu dépassé donc bu ñu waxee ñu réfléchir ci guerre bu mel noonu ñun li ñuy jëkk a ñaawlu mooy le fekk ba léegi Afrique bien que am nañ Union africaine am nañ ay CEDEAO am nañ yeneen organisation mais ba léegi mënuñu fekkee bu ñu ne Afrique rek nga xalaat benn nit boo xam ne moo koy diriger benn kàddu boo xam ne moom la ñuy joxe benn armée boo xam ne moom la am loolu moo tax réfléchir ci dina jafe te loolu moo tax man ma jël option ne ci conflit bi damay xool côté bu ci nekk lan moo ci intérêt africain ma def ko ay pàcc yoo xam ne dinaa ci wax yenn bu njëkk bi mooy li ñu tubaab bi wax neutralité neutralité mooy faro fenn ñaari nit ñu jotee wala ñaari dëkk yu jotee Ukraine ak Russie Sénégal taxaw ne man day faraluma Ukraine faraluma Russie waaye itam ànduma ak Ukraine ànduma ak Russie loolu lu bees la ci ñun ñu koy saluer parce que taxawaay bu rafet la lan moo tax parce que ñun dañu yàgg ñun sénégalais ak africain ñu ñuy yóbbaale dañu yàgg nekk ñoo xam ne ngelaw bu ñuy rek lay yóbbaale doo xalaatal sa bopp doo doxalal sa bopp doo jëfal sa bopp neutralité bopp bu ñu koy wax am na fi benn mouvement bu ñuy woowee mouvement des non alignés yoo xam ne bañ koy créer dëkk bu mel ni Sénégal amagul sax indépendant mais ñooñu dañ ne woon rek ñoom faruñu ak européens yi faruñu ak États-Unis waaye itam faruñu ak Union soviétique bi nga xam ne moom moo fi nekkoon donc ñooñu ñu dañuy defal seen bopp mais defal seen bopp boobu dëggaluñu seen bopp comme nañu waroon dëggale am na beneen façon dëkk boo xam ne ni ñuy doxale faruñu ak kenn mooy Suisse mais Suisse ni ñuy doxale dafa muus ba nga xam ne organisation internationale maanaam organisation yi di boole dëkk ci àdduna bi yëpp presque ñoom ñëpp boo demee Suisse lañ nekk parce que Suisse dafa gëmloo àddina bi ne ñoom faruñu fenn ñaar ñu xuloo ñoom ñoo lay àtte ñu dem ba ñu nangul leen loolu arbitrage boobu mu indi leen ci koom ak ci prestige international loo xam ne pays africain yi amuñu ko donc ñu jàpp ne neutralité boobu bañ a far fenn yoon bu bees la Afrique daf ko war a jël mais Afrique waru ko jël en tant Sénégal wala Mali wala Côte d'Ivoire Afrique ci boppam à travers l'Union africaine ñoo war a waxtaan seen biir ba nga xam ne bu ñuy wax ci éco-industrie dañ naan ñun waa Afrique faruñu fenn suñu yoon bopp la ñuy jël loolu mooy tax ci biir guerre boobu lu ci metti ñun ñoo koy dékkoondoo waaye lu ci neex tam ñun ñoo koy amandoo waaye tant que ñu ngi continuer ku ci nekk di jël position sa bopp yow kenn solution bu baax bu am pour Afrique ñaareelu ponk bi mooy côté sécurité maanaam nan ngay aare sa bopp nan ngay aare sa réew nan ngay aaree Afrique tey li am daf ñu rappeler li nga xam ne moo xew ci buntu Sénégal mooy Mali la fa nekk Mali problème bi fa am du guerre civile du conflit interne du problème rek entre mali yi seen biir mais dafa doon Mali dafa doon dëkk boo xam ni dafa bari koom dafa bari ay richesse yoo xam ne àdduna yëpp dañ ci teg seen bët ñoo ñu ci teg seen bët tubaab yi bari ci lool fexe bu dugg Mali jaxase Mali bëgg jël Mali def ko ñaari réew benn réew bi nekk au nord boo xam ne ñoom ñoo koy contrôler wala ñu def ay nit ñu leen bu ñu ko contrôler ñoom dafa leen di permettre comme fa nekk comme nañ ko daan ak suñu ay maam ñoom ñu ñëw jël ko di ko yóbbuwaat seen réew moo tax ku xalaat ne Mali dañu am ñoom rek problème seen biir yaa ngi nax sa bopp problème boobu bu mu amee Russie bi ñuy wax nga xam ne dafa bokk ci guerre bi dafa ñëw jël position ne dafay jàppale Mali comme ni mu jàppalee beneen dëkk Afrique buy Centrafrique man dugguma ci coow bi pour le moment est-ce que loolu baax na ci Mali wala baaxul ci Mali mais li ma gis par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey mooy ba ñu ne Russie ñëw na Mali ba léegi dëkk yi nga xam ne dañu mel ni comme ay France amuñu jàmm parce que dañu gis ne noonu ñu bëggoon ñëw jël suñu koom-koomu réew yi léegi dañ ci am wujj te wujj boobu arrangé wu ñun nag Afrique ñoo war a comprendre ne ñoom bu ñuy wujjante seen biir pour taamuñu ñun ñun ñooy am fulla daagu fañ ñu nobee loolu nag ni ñu koy mën a defee mooy au lieu nga bàyyi Mali mi nga xam ne ci biir Afrique la bokk ci biir CEDEAO Afrique de l'Ouest la bokk doo ko bàyyi moom rek ak ay coowam da ngay fexe yow CEDEAO Afrique de l'Ouest yow Union africaine nga xam ne yaa ëmb doomu africain yëpp nga jàppale sa doom bi nga xam ne moo nekk Mali pour nga jàkkaarloo ak union européenne mais tey ñi nga xam ne noonu la CEDEAO doxalee ñun rafetluwuñu ko parce que Mali coow lu fa am coow la boo xam ne am nañu def coup d'état jël nañu réew mi ñooy ñoom ñoo fa nekk amul dëkk bu amul ci monde bi boo xam ne jaarul ci période bu mel noonu transition c'est pas parce que ñi fa nekk kenn faru leen ci ay élection que toogaluñu Mali tey ñoom ñoo toogal Mali d'ailleurs France buy wax ñoom lay waxal Sénégal buy wax ñoom Nations Unies bi wax ñoom lay waxal donc c' est pas juste parce que coup d' état la que amuñu légitimité am nañu légitimité booy waxtaan ak ñoom ci nan lañ fi war a jógee dañ koy def ci njëkk ak teraanga mais pays CEDEAO yi bi ñu gisee ne tubaab yi am na fu ñu jaar Mali autorité malienne yi nanguwuñu saf africain yi ñun waruñu nangu ñu téye suñu doom doomu jàmbur di ko ñu dóor Mali quelle que soit erreur bu fa am. ñun dañ leen war a xëcc suñu bopp bañ a bàyyi keneen jóge feneen di ko néewal doole pour man loolu dafa doon erreur boo xam ne daf ñu nar a topp tey bu ñu jëloon fexe ba militaire yi fa nekk dinañ bu normal délai bu baax pour ñu jóge fa population malienne yi nga xam ne defuñu dara seen yoon nekku ci duñ leen sanctionné duñ leen bunduxataal te loolu nga xam ne yeneen pays Europe yi moom la ñu di ko wut ci Mali ñun bu ñu góorgóorloo koom boobu dafay des Mali te bu desee donc côté sécuritaire boobu dama jàpp ne dañu war a jàppale Mali dama jàpp dañu war a def suñu armée africaine ba nga xam ne du Russes ñooy ñëw di ñu protéger du européens yi ñooy ñëw di ñu protéger mais ñun ñooy protéger suñu bopp protéger suñu nit protéger suñu koom-koom boobu moo nekkoon ñaareelu pàcc ñetteelu pàcc bi mooy li jëm ci mbirum mbirum dund parce que te bu ñu ne Ukraine ak Russie ñu ngi xeex. ñun ci mbirum dund li nga xam ne moom ñu ci intéressé dañ naan ñoom mburu mi ngeen xam ne moom ngeen di ndékkee di ko lekk bés bu nekk blé lañ koy defaree blé boobu mu ngi jógee Ukraine wala Russie puisque ñoom ñu ngi xeex produire ku ñu te seen bopp lañ tal boo leen deful ndànk yéen di ngeen dee ak xiif foofu leçon bi nga xam ne moom lañ ci mën a jàpp mooy ñun sàggan nañ lool sàggan nañ ci ñaari wàll bu njëkk bi mooy blé boobu ñu fi indi ñu koy lekk boobu ba léegi dafa jóge feneen boo xam ne dañu ko imposé loolu dégg naa Sénégal ñu ngi ciy teg ay jéego mais sotteeku mais bu ñu ci taxawee war nañ mën a continuer di lekk mburu te duñ ko jëndi feneen ba nga xam ne ñeneen bu ñuy geer suñu yoon bi ci nekk mais bi ëpp solo mooy même bu dee mën na ngoo defar blé mais mburu du blé rek moo koy defar mburu dugub defar na ko mburu mboq defar na ko leneen defar na ko nga ne man li may dépensé ci wuti bële ci dëkk yoo xam ne maîtriser wu ma leen parce que bu ñuy guerre guerre bu mel nii man dootuma xam nu muy def may def naa wuti li ñuy woowee produit de substitution naa ndekkee fonde naa ndekkee laax naa ndekkee càkkri loolu nag du loo xam na da ngay ñëw ci tey suba nga imposé ko fayeen yi wala alpulaar yi dafay jël temps France doole jooju ñu ko wax mu am ko Nations Unies bokk ci cinq pays yi nga xam ne ay membres permanents di conseil de sécurité bi place boobu bu ko amee yàlla ak pays africain yi parce que suñu maam yi ñoo dem def guerre bi gagné guerre bi ak France mais terewul ba ñu guerree ba war a dem Paris défilé ne France gagné na France bokk na ci gagné suñu maam yooyu dañ leen jël yóbbu leen ca gannaaw parce que français yi bëgguñu woon wane ne ay doomu africain nit ñi ñuul ñoo leen xeexal ba libéré leen donc France place boobu dama jàpp ne bu ko amee parce que africain yi ñoom xeex léegi nag guerre xam nga guerre moom du lu baax ay nit lañ ci dee comme dañ ci yàqu kenn mënul lu guerre mais situation de crise bu mel noonu bu amee toujours di nga xam ne yow situation bi ni mu demee arrangé wu la yaa ci war a profité pour changer tey beneen guerre am na ñu ne Russie Ukraine la mais guerre bi dafa am benn dimension mondiale ku ci nekk wane nga sa ay force mais ku ci nekk wane nga sa ay faiblesse Russie wane na dooleem tey kenn ñemewul songu Russie ñoom ñëpp nee nañu Russie amul dëkk mais kenn ñemewoo ko song parce que Russie dafa préparé sécurité dafa am armée nucléaire dafa leen di jaay gaz dafa leen di jaay yoo xam ne ñoom dañ koo soxla doole jooju Russie am pays africain yi war nañ ko mën am tey dafa jot Afrique wane ne ànduma ak Russie ànduma ak Ukraine ànduma ak Union européenne ànduma ak États-Unis ànduma ak Chine contre ma leen waaye ànduma ak ñoom man sama bopp laa àndal parce que man maay Afrique dëggal sama bopp. crise bu mel nii nag ci nga war a profiter nga réglé ko mais tan que président Sénégal mooy wax wala président Gambie wala président Guinée loolu duñ ko am moo tax ñun bu ñuy meree suñu président yi lañ war a meree fi may terminer mooy problème bi du France du Chine du États-Unis parce que dëkk yooyu ku ñu fa fal dañ la fal pour nga doxal sa waa réew dañ la sant nga doxal problème yi ñun ñun waa Afrique président France français yi dañ ko élire pour mu dox intérêt président États-Unis dañ ko élire pour mu dox intérêt États-Unis suñu président dañ leen fi teg pour ñu dox suñuy intérêt ñoom nag ñu ci bari ñoom ñoo doxul suñuy intérêt donc révolution bi foofu lay jógee Afrique nekk benn nekk benn bopp pour fu ñu taxaw wax ñu respecté ñu ñu jëlee ci koom assurer avenir suñuy enfant suñuy bopp jërëjëf.